dama koy dégg souvent casting ñuy wax ne dafa am ay promotion canapé et c'est vrai c'est vrai il faut le dire parce que tey man mënuma gis benn fille toog ci télé bi déjà amuloo jeu d'acteur bi nekkul ci yow dicton bi nekkul ci yow prononciation bi nekkul ci yow sa image baaxul nga toj tele nga da ngay da ngay tourner film la la fa dugal lan la wala dafa am casting yoo xamante ne casting bralon la damay woote casting nga xam ma nga gis fa sa benn xarit nga woo ma ci fenn ma jàppale ma quoi dugal ma ko ci affaire bi ma rus la yow dugal ko mooy war a dériver parfois casting xale jigéen ñi ñi leen defal casting tant que amuñu ful la gëm ne man kii li ma koy defal ni sama liggéey laay def xooluma ci moom wala pour ànd ak moom wala pour inviter ko sama appartement pour dugg ci série bi parce que kooku mais jigéen ñoo si ñoo war a yeewu parce que li wax kaay seet si ma sama kër pour duggale ci film bi film boobu jeexee pare na ci yow te mën na la ko defloo sax ba pare nga def ko ba pare après doo ci film foo koy waxee da ngeen di wër di wax ne daf maa nax ne woon dina ma dugal waaye daf maa def lii par doo woowu ma doo ko wax c'est comme dans les télévisions c'est comme ci télé yi aussi pour être animatrice am na ñoo xamante ne da leen jaral lu ne lu ne lu ne pour dugg télé bi man dama wax tout le temps je défie quiconque ku mës a taxaw ne mës naa ko na ma jàppale ma def animation wala ma def télé mooy proposer ay promotion canapé je défie quiconque laa lay wax depuis que je suis dans ce milieu képp ku ma wax dama bëgg nekk animatrice sama lay mooy dama rajo communautaire laa ah, jëkk conseillé foofu dañ lay tarbiyu dama rajo communautaire nga jàng parce que man fa jaar ba am li ma bëgg aw ma sax li ma bëgg mais fa jaar ba am tuuti après nag nit gis ma na ma yow sa talent bii nga am xajul ci rajo communautaire nañ dem mar yóbbu la rajo bu mag nga dem ci rajo bu mag boobu noonu ngay rampe di rampe di rampe ba si niveau bii nii na ma yàlla baal ci ni ma ko war a waxee homosexualité bi tout le temps tout le temps les les gens t'abordent abordé la elle est de xam nga des fois il m'arrive ci Facebook nga gis kenn ku la envoyé message hmm, ma dugg ci sa profil xool say ami sa ami say ami yi nga amal ma xam ne lu gaa la kii jarul sama koy accepté mais t'envoie des messages pour te dire waaye da nga coofee danga ah, da boo yow góor gu rafet nga mais sa moroomu góor di nga ko xool naan ko góor gu rafet nga loolu boo ko waxee nit ki bu fekkee doful dina xam ne kii fii la jëm ak man et tu dois l'arrêter am sa fulla man je te bloque directement parce que bëgguma am ak yow benn contact nga naan sax mës nga ma envoyé message ma tontu la parce que les captures sont là dañuy capturer ne mës naa mës naa ko envoyé message tontu na ma man tu m'appelles pour ma dire am na benn façon booy waxee sax je te je directement parce que milieu bi tentation yeneen garaawul de ay non ay copine ay affaire yooyu noonu non non garaawul de mais man bopp moo ma ci metti parce que góor nga la gis bëgg la. yéen na nekk ak yow ñoo ngeen nekk yéen ñaar parce que góor nga mais mbiru bi nga xamante ne man mooy bi may déranger mooy mbirum homosexualité bi ñu proposition bi parce que c'est énorme c'est dafa doy waar ba lay dañ lay dañ lay dañ lay wax affaire yoo xamante ne te parfois ñi la koy def ils sont des gens connus ah ñoo xamante ne sañoo tudd seen tur parce que boo ko tuddoon dëkk bi tàkk da nga leen di xam bu baax ça m'est arrivé une fois du ma wax tour bi mais loolu su ma ko waxoon xëy na mun na mun na mun na doy waar trop. waaye. ci non euh, ci secteur stylisme. ñu daje mu naturellement comme man tel laay def dangay bëgg ay ñu lay solal laaj ma sama numéro ma jox ko pour man peut-être dafa gis ne xëy na euh, taay bi pour ñawal may affaire parce que mu ne boo man gars yi bëri sax maa leen di ñawal ma ne ko ah, c'est bien. il prend mon numéro il m'envoie des messages ça va ci la naka mu yaa ngi ci jàmm ma ne ko ça va waxtaan ak moom parce que ni ku la laaj sa numéro di la envoyé SMS da ngeen waxtaan mais à la fin euh, li ma mujjee wax dama ko dama ko man ko ne ko bés boo ma envoyé tey message bu jugee sa téléphone ñëw sama téléphone je vais que yow fi nga commencé wax ji ak fi nga mujjee nii je suis te tu man connu ma ne ko lii su ma ko génnoon wax ko ci dëkk bi doo fanaan Sénégal. te kenn du ma parce que j'ai tous les messages donc su ma xëyoon tey dem porter le plainte j'ai tous les messages diffusé ko à la euh, sur les réseaux sociaux dootoo jar dara ci dëkk bi c'est depuis lors que li dama daf ma croire su ma rombee sax mu nuyu parce que xam na ne kii kii muy waxal ni nekkul sax ci domaine yooyu man taalibe bàyyi laa dafa am loo xam ne dama ko gëm mooy que man dafa am ñu ma yaree samay waajur dañu am benn yaakaar ci man sama famille am benn yaakaar ci man ba bàyyi ma ba may def milieu bi ma nekk nii waruma leen rusloo wala ñu may dégg ci yenn détails yi